njaboot gi itam yeneen langue waaye di leen dugal itam ni muy doxee pour que fu nit ñee bay mën bay mën a jëf ay jëf muy delluwaat ci daara te du daara njabootug daara itam fexe ba nekk foofa di liggéeyal daal jërëjëf si loolu loolu lu war nga baal ma rek. gis ni benn famille macha allah lu baax la. Mhm. rek. Mhm. benn benn fonction lan lay def loo muy jàngal amatul droit. def na génn ko.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 dafa am ko masal aj na ko waaw yéen mag ñi bu njëkk da doon bañ jàng français mu ne ko waaw mu ne ko te léegi yéen ñëpp yéen a ngi jàng français mu ne ko waaw mu ne ko bu ci wér mu ne ko ñaar yëpp mu ne ko nu mu wéree mu ne ko bu njëkk ba ñuy bañ jàngi français lor ji daa nekkoon ci jàng français tey jii nag bi ñuy bañ ñàkk jàng français lor ji daa nekk ci ñàkk jàng français